waqar ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal nañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew wala bitim réew bi am waaleykum mu ne bu leen topp nit ñi ngir seen alal walakin yas'ukum minkum bastul wajhi lan li ñu soxla ci yéen mooy xar-xaram bu ubbeeku yaatu ak jikko yu rafet wa husnul xuluqi ak jikko yu rafet tey ki doon joxe alal ak lu alal ji bëri bëri bëri ci jikko ji rafet du yàgg waaye nit ki nga xam ne foo dajeeg moom mu wax la salaamaaleykum war la xar bu rafet wax la jikko ju rafet soo amee naqar mu ñëw taxawul la soo amee ba bànneex mu ne ndokkeel la kooku mooy ki nga xam ne kii moo jar a toppkat te kooku bu yàggee mooy am ay xarit mooy sa xarit dëgg-dëgg bokk na ci importance yi mooy ne jikko yu rafet nit dafa am ñaari taar jëmm ji yére yam sol tey kenn ku nekk yaa nga sol yére rafet pour taar bu nekk ci yow waaye am na beneen taar bu nekk ci moom mooy ci biir ci jikko intérieurement ca mooy jikko yu rafet mooy xol bu sell xol boo xam ne amul feebar xalaat amul kañaan amul soxor amul rëy amul lépp loo xam li ci amraal xal bi la bokk kooku mooy setul biir mooy taaru biir doomu adama taaru biti doomu adama nag am na solo waaye taaru biir bi mooy ëpp solo moo tax gis nga woykat ba mu ngay wax ne ali bin abi talib laysa al jamaalu bi aswaabin tusayyinuna in al jamaala jamaalul ilmi wal adabi nee na taaru nit du yëre ya muy sol de dedet waye taaru nit jikko yu bax yene ci mom xam-xam bu rafet bo nek ci mom teggine ba ci rafet ba koku moy taaru nit su ko defee kon islam bokk na ci nga xamne ne importance dina euh makarim axlaq importance bi nga xamne islam jox na ko xosnul xuluq yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ma sa toog sahabi yi ba yàgg mu ala akhbirukum bi ahadikum ila allah واقربكم مني مجلسا يوم القيامه خنا دوملن دوغن ملاج ما وخال لن كان لا يالا غنا صوب كان موما غنا جيغي بلاص يوم القيامه بون ديمي يوم القيامه كان موما غنا جيغي صابي نكو بلا هاكاي لو كلم بك من احسنكم قولوا خات نياري بار لن تود كا غنا رافات جيكو رك يا كون ديكاتي يوم القيامه ني غنا جيغي الله عليه وسلم كلا غن جيكو waaye itam nga njëggee ci ne fi ngay dund yow fii ngay toll ka la gën a jege yàlla mooy ka la gën a rafet jikko ka la gën a rafet jikko moo la gën a jege yàlla seen sàll yaa ngi koy dégg bu baax de waaye ku ñaaw jikko du jege yàlla mukk ku ñaaw jikko du am cofeelu yàlla mukk nag moo tax nañ defar suñu dëkk yi ndax ñu am cofeelu yàlla jege yàlla man a dend ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yawmal qiyaama xadis bi loolu la ñuy wax bu ñu ñëwee ci lan mooy jikko yi rafet yi nga xam ne moom lañ soxla doomu aadama bu yore bari na waaye dañ ci tënk tuuti rek sabu nga naaw taqawa iman ndax dafa am ñoo xam dañ ko def ne xuluxul am ñoo xam ne déedéet kay amru la mooy taqawa ak iman ragal yàlla ak gëm yàlla waaye nag comme dañ ne dañoo am baatu taqiyu mustaq min taq ni taqaa wala dana am mu'min mustaq min amana kon mën nañu wax ne bu itam ay jikko la nit ki base jullit en tant que julit la base bi gëna fort ci moom ci lépp lu muy def mu teggu ci yoon lépp lu muy def yàlla nang ko nako tek ci ñaar yi taqawallah wal iman billah ca taqawallah nak ci aduna bi daf la bari lu mu lay jëriñ demal ci suratul talaq lu yàlla wax man yattaqillaha yaj'alu makhrajan wa yarsuqu min haythu la yahtasib ragal yàlla rek am na problème yu rëy rëy rëy lu mu rëy rëy lenn rek moo la ci mën a génne ragal yàlla man yattaqillaaha yaj'al lahu maxraja nga ñàkk lool ne duma am mën naa dem ci Touré ndax xam naa ne moom rek moo mën a dimbale ma dem ci Touré moom laa am yaakaar yàlla ne déedéet xaaral bala ngay egg ma jox la foo xam yaakaar yi du tax wa yarzuqhu min haysu laa yahtasib lu la ko may taqwallah moo tax taqawaa daal dëgg dëgg dëgg dëgg nekk ci yow dépense jafe la déedéet bu baax si la ragal yàlla nag waa ji dafa ragal yàlla lool waaye moom daal man dafa sax ba am dépense am nañ ko seetaan yàlla wax de man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib mu waxaat beneen ne man yattaqillaha yaj'al lahu fi amrihi aha ngir lu mu jafe-jafe nga jiital ci ragal yàlla lu mu jafe-jafe ba nga koy engagé nga dugal ci ragal yàlla fekk ci yombal ci biir yàlla def ci yombal ba ca toppaat mooy lan yaasin ajro wa yakfiru anhu sayyiati kon ndekati taqwallaay mooy baas bi nga xam ne moo mën a dimbal doomu aadama ci àdduna ak ci àllaaxira imaan nag billaahi dafa war a mat ci arkaan waaye suñu problème sëñ Moustapha du problème im gëm yàlla de en tant que Sénégal ak te jullit yi bokkoon koo wax mu ne gëm na yàlla aha yàlla gëm nga ne yàlla am nga ne mu ne waaw gëm nga ne malaayka am na mu ne waaw gëm nga ne pispeen ci am na mu ne waaw gëm nga ne danga nga dee mu ne waaw gëm nga ne danga nga dekk mu ne waaw gëm nga ne la xisaab yomal xiyam nga ne waaw gëm nga ne ku baax mën a dugg àjjana ñu ne waaw nga ne gëm ne ku bon mën a dugg safara ndax am na mu ne waaw waaye problème bi di foofu fiqa billah mooy suñu problème wóolu yàlla mooy suñu problème gëm yàlla moom wax ko yomb na fane ko yomb na waaye wóolu yàlla nag mooy suñu problème mbir yi wóolu yàlla nag bis bu mu óoloo yàlla dara du ma dal mukk man ak eh, turaay ma ko teg feebar naa ma dem ci sëriñ si da ko seeti lu tax parce que ma yàlla moo tax ma dem ci keeb eh, turé ba ma demee ci ture mu mel ni turu turé yi xam ne yemee yàlla wa man kataba wala xa jaay ndox rek lañ man ñu dikk mu ne ah attention sa yow daal ndaw si ma gis yaakaar naa li nga am moo la ko def de parce que ku amu confiance ci yàlla óoruma yàlla ma dem nag dog dikk lu ne mu defal ma ko dama joxe sarax nangam dama rey nangam dama def nangam dama def nangam du tax parce que su ma ko defee danaa ci mucc gëmatuma ne yàlla ci boppam moo amee sama mucc waaye dama a ne sarax yooyu mooy def moom moo amee sama mucc ana confiance ko ci yàlla ana siqa billah am mooy suñ problème de waaye du gëm yàlla nag beneen ci jikko yi ñu war a jikko moom itam mooy sabru mooy muñ sabru gis nga mboolem jikko yu baax yépp ci islam boo ko doon tënk base bi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg asas bi bi mooy sabru kon ndekete base bi dëgg dëgg dëgg pour ragal yàlla mooy muñ kii bu ma tooñee tey ma jéggal ko am naa jikko jéggalaakoon waaye li ma ko may muñ mën a fayu moo tax ma bàyyi ko mu ne ma ko teg kii su ma laajee tey ma may ko keneen laaj ma may ko keneen may ko dana am jikko ku tabe lu tax ma mën a tabe la may joxe laa mën a muñ su ma ko mëntoo muñ du ma ko def danaa ñëw ci jàkka ji julli waxtu jot ma ñëw ci jàkka ji ñu ne ah kii de mu'min la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne in saa ra'aytum rajulan ya'tadil masjida fashhadu bil iman ma ñëw ci jàkka ji bët bu set gars yi ne may iman kii de waaye gëm yàlla lu ma ko may muñ nelaw ya muñ bànneex ba dox julli si kon boo ko doon topp nag benn bu nekk nag ci jikko yépp lay fondation yi mooy lan muñ muñ googu nag man nga koy wax ne ñett la muñ ngir topp yàlla muñ ngeen bàyyi mooy yàlla muñ ngir natt yi nga xam ne mooy dal ci sa benn bu ci nekk am na ay waaye waxtu bi ko maye bi ci topp ci jàkka yi jikko yi kon mooy al ihsan mooy rafetal ak lu jafe nag gis nga islam bañ ko laajee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam diina kon bañ ko laajee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu wax daf na ñett yii la al islam wal iman wal ihsan ñu ne ko lan mooy ihsan mu ne an taabudallaha ka annaka taraahu wa lam takun taraahu fa innahu yaraak na nga jaamu yàlla mel ni yaa ngi jàkkaarloog borom gisoo yàlla waaye yàlla moom mu la gis foo toll xam la ci sa biir xam la ci sa biti xam li ngay yéene xam li ngay doxee la lay jaxle sax moo ko xam yëpp lépp xam na boo koy jaamu nag jàppal ne aha kii may jaamu de li may def yëngatu bi may def bu di julli bi la su jot ba yëpp mu koy gis waaye bu ma julli nag ci góoma loolu ah dama julli rek na ma war waajib bi na ma wàcc rek ma dem sama yoon du am xusoo du am xudoo te ñaar yooyu mooy defet mooy tax julli bi ñu nangu ko al xusoo wal xudoo da nga julli yàlla ci xusoo mooy toroxlu ragal ko tu to xudoo mooy nga toroxlu itam ngir sujjóot bi ak rukuut bi xarakaat yi yëpp day toroxlu ci kaw yaram waaye xal bi itam ne li mooy jàng zikir yi mooy jàng xusoo la lay jox la koy maye nag muñ moo koy maye mooy ihsaan inna allaha ya'muru bil adli wal ihsaan adl la ko tey itam mooy màndu ca màndu it foo ko gisee itam nag ba tey boo ko delloo rek jikko bala ko mooy mooy muñ nga moo la ko mën a may imam ñëw war a atte Ibrahima Moussa Ibrahima moo tooñ Moussa de waaye Ibrahima njëkk na ci Ibrahima Moustapha ne ko kaay ma jox la un million bi dimbali ma parce que kat soo ko deful danaa gane wala ma jël avocat intermédiaire intermédiaire mooy avocat bi rek mu ñëw ci Moustapha waxtaan ak moom négocier ak moom jox ko cinquante millions pour mu jox ma dëgg su Ibrahima su Moustapha nangoo muñ cinquante millions yi gedd ko dana nekk man danaa ci dëgg waaye su ko mënta muñ day jël cinquante millions àtt ci li ko neex kon nga gis ne lépp mu ngay dellu ci muñ rek ci lu ma ko waxoon ba tey karam mooy joxe mooy teraanga wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu alxuraan mooy wax de loo joxe te yàlla rek a tax nga joxe ko yàlla ne danaa la ëpp lu ko remplacer waaye nag muñ ba mën a joxe moo jafe tey jii sàll day ñëw ne naa seeti imam Dramé soxla naa cinquante mille tey jii imam Dramé nga am cinquante mille de mu ñëw di ko imam ma ne dama am soxla boo xam ne bu mu am bu amul cinquante mille dana am problème bu rëy imam toog ba yàgg mën na ko wax dëgg yàlla fekk ko fi bu yeewoo nag nga xam ne bi daf mel ni ñuy sant Touré nga xam ne du mu bëgg a wax lu dul dëgg da koy da koy wax wax dëgg yàlla <laughs> fekkoo fi lu ma la a jox bokk fi lu mën a jox ndax bëgg na wax wax lu dul dëgg ndax mu ngi fi lu tax parce que imam Dramé ñàkk cinquante muñ ba ñàkk cinquante mille moo ko jafe mënu ko muñ cinquante mille bu ko mën a muñ rek joxe ko kon karam dëgg-dëgg ku ñu wax moo tabe mooy kuy joxe ay yoon yu bare benn yoon boo ko joxee rek du tax ñu ne yaa tabe de waaye da ngay joxe yoon yu bëri ba ñu ne moo tabe la koy mën nag mooy nga mën a muñ ñàkk alal waaye soo mënta muñ ñàkk alal doo ko mën muy xam-xam bala muy alal di la moom leneen la dara yow itam nag te gis nga li gën a jafe maye daraja nag moo jafe sëriñ ci de daraja tabe ci daraja moo def jafe sëriñ ci ñu bëri nag waaye mooy tabe pire nag ki tabe dëgg dëgg dëgg ku lay may daraja rek bu amee alal jox la كولاي ماي دارا والله بو امي لا جوخ بوكنا تي جيكو يرافتي سانت دوما ادم فوم تولو دا فور سانت موتاخ يونتبي صلى الله عليه وسلم ني گيناني جوليت ني نكو ا مون ليمبام يوم ني نكو لوتاخ مون وين اسابو خيرون شكر الله زاده الله وين اسابو شر فصبر فكان خير لهم نال الدنيا بو امي دارا يالا جوكو دارا مسانت يالا غريم جوك سوكو لو ميتي جوتي مو مونجو يالا فاي كلو باخ كون كاي مبير جول ييب دا في ييمي كون جول نك دا فا وار نك سانتال كو شاكير نك اك شكور بوكو ني شاكير بن يون لاكاي ديف نياار يون دو بري شكور نك موم fu mu toll mu ngi sant am na mu ngi sant ñàkk na mu ngi sant yàlla waaye am na ñoo xam ne bu leen yàlla joxe ñu sant bu leen yàlla joxe duñ sant ngeen baal ma Katim Touré ngeen baal ma de Sandaga la ne woon ci marché mu ñëw xëy lal ay ay ay ay dàllam da jaay dàll yi ñu toog ba takkusaan rek kaatim ñu ne jógal julli kaatim dal di jóg julli benn rakk sëlmal loolu di yooyu kaatim yi itam benn rakk mu ne ah yàlla benn may daal la may ma jaay ko benn per laa jaay ci soow ba léegi benn rakk laa ko julli <laughs> ci soow ba léegi maa ngi laal di jaay jaayu ma la mooy benn benn daal rek laa ko laa jar la kon benn rakk rek laa julli <laughs> kon mooy koo xam ne bu la yàlla joxe nga sant waaye bu la yàlla joxe doo sant ca yàlla nag la in shakartum la azidannakum wala lépp lu mën mënta doon rek ak xéwal bu mënta doon rek boo sante yàlla dong la boo ko gëstoo rek ci gis bokk na ci alaafu mooy jéggale alaafu mooy waxuma ñàkk pexe ak jéggale nag bokk ñàkk pexe dañ may tooñ ma def pexe yu ma mën yëpp pour fayee ci waaj mënuma ci dara ma ne ko bàyyee neel ak yàlla dama ñàkk pexe waaye ki jéggale mooy mu tooñ ba pare yaakaar ne damay fayu ma am moyen yu ma mën a fayoo ne ko baal naa la demal ngir yàlla jikko jooju muñ moo koy maye de ba tey de boo ko seetloo boo mënta muñ rek doo ko mën a def rahma taawun af yëpp ci la bokk shura yëpp ci ay jikko la yoo xam ni islam da ko santal pour ñu tënk ko foofu man nag dama amul jikko yu baax nan lay war a def ba am jikko yu baax mooy bunt bi nan laa war a def man ba am jikko yu baax amu jikko yu baax de wala amoon naa jikko yu baax nan laa mën a fexe ba gàdd sama jikko yu baax yooyu ba du yàqu dégg salaamatul aqida mooy premier point pas-pasu doomu aadama dafa war a mucc ci bokkaale dafa war a mucc ci shawaib dafa war a mucc ci gis ngistal lépp loo xam lu koy yàq da ko ci amul gis nga nit ki bu bu aqidam muccee rek jikkoom jub lu bon du ko mën a def aqidam su fekkee dafa sell wir kañ jax-jaxulul déngi déngiwul raxasul ci dara booloo ci kenn def yàlla muy yàlla la yàlla yu mu jox ko moom rek keneen la mu ayee mu jox ko du jaamu ku dul yàlla su ko bàyyi ko jikko ju baax la fi am bi ci topp moo tax yonent bi sallallahu alayhi mu ngi ne ak maral mu'minin imaana ahsanahum xuluqan ñi mën a mat gën a mat ci jullit bi seen gëm yàlla ñu ne ko ah mën a gën a rafet jikko kon jikko ju rafet rafetal sa aqiida rek fexeel sa pas-pas bi bu ko dara rax te bu pas-pas bu dëgëree saa yu ne allahu akbar nga jog def ko nañ ko bëggee saa yu ne bàyyi leen yàlla fu waxee bàyyi nga bàyyi soo ko defee rek yaa ngi danaa jikko bi beneen bi mooy mujaahadat nafs xeex ak bakkan xeex ak bakkan moyen la bu rëy nit ki mën a am jikko yu ndax jikko yu bon yépp ci bakkan la baas ndax wax naa ne doomu aadama bakkanam bi mooy opposant ci ci ci état bi ka koy dimbali moom opposant bi mooy lan seytaan ku yàqule ku yàqule seytaan dafa jaar ca li bakkan bi bëgg yàqal ko moo tax seytaan lu jaar di muslim looy def lu ñu ne ah nexool a'uuzu billaahi mina sheytaani rajiim bala koy def teg moo tax ci wërde Cheikh Ahmed Tidiane radiyallaahu anhu أوزو بلاي تاوز كي بونك إلى بوك بمانا نان يرد جنب فاتح ديرت دم أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعو جنب فاتح كنت لطخ فريد بن فقام يوري يسيطان لمن يقل نت مفقه بانك دفع الله بارس يو برانك دمو تير دي نغاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ndax بار موغي بايكو سي ساتانا على وصف فعلان لا بو فيكون دافا ديف شاتين رك موي كو ياق بن يوم ديخ واي داكو واخ فعلان سيخه مبالغه لا كو ديف باسكو لول موي جيكو بوني اعوذ بالله بوني اعوذ رك موي لان بو لول لو موي تك اعوذ موي تعلقت بالله التصقت بالله سبحانه وتعالى اعتمدت على الله سبحانه وتعالى لانجح من هذا الشيطان الرجيم كوماي مسلو لوتاخ ماي ديلو وات يالا لوتاخ ماي ويكو تي يالا داخ شيطان بي ني نه فوب لا يامو نكو رجيم اي لعين ملعون موتاخ طريقه بي لوي داف موي وصفه بي لا موي حاضر الجمعه بي لا موي موي لان لا موي موي ورته بي لا ني لا نجاكل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم داخ جين باغي جان لا غاي جان بولا جاخ جاخ ام bu seetaanu dàqo rek la ngay def dana sell te dañ bëgg lépp la def muy sell ndax tariqa la te sellal ko sa ajana sa ajana taxaw na ku ko yore ci sellal ko wallahi sa ajana taxaw na ndax li sharia bañ lépp la bañ li sharia santaane ba noppi la santaane doon ci nag ay ngëneel nag teg ci lii rek du leneen du nga xam ne dañ fent lu bees fent lu bees de tariqa bi dafa ñëw li islam santaane mu santaane ko ba noppi ne def ko lam islam tere mu tel la ko ba noppi ihtiyatan ihatatan nak pour mu nga fexe ba nga xam do ko jégué foofu mu tegal la yeneen ne ah dal yóbbu dal wax astaghfirullah da salatu ala nabi ndax benn bu ci nek amna jëri waxtan bi mayo pour ñu dugg ci pour détail kon ñu xam ne jikko yu rafet mag ñi baax ñépp moom lañ daan oote makarimul akhlaq mag moo seetal bañ fin ba bi moom la daan oote cey moo nekkoon ci moom nag suñu imam Kéba Touré mii kenn la ci ñoom la bokk na ci yi nga xam ne waxoon naa ko sànq dana tax nga am jikko yu rafet mooy muñ ndax wax naa ne sànq ne muñ mooy baasu bépp jikko boo xam ne bu rafet la ba ca topp mooy dëggu dañ koy tënk rek ndax waxtu yi dafa guddi tënk dëggu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ toog mu toog saxaaba yi ne ay nation boo xam ne dafa bëgg euh, jub bëgg a texe bëgg a développer ci économique bu yomal xiyaama mu dem eh, mu dem amul xiyaama nu may def nu mu ko déglu aleykum bi sidq na ngay taxaw dëgg de soo taxaw dëgg sa développement dana jog soo taxaw dëgg da nga jubóog ñu dëgguñu soo taxaw dëgg danga dem àjjana ànd ak ñu moo tax mu ne aleykum bi sidq mooy baas bi defar nit ñu ne tax mu ne fa ila sidq yuhdi yahdi ilal bir dëgg dafay yóbbu nit ci mun mënoo jaamu yàlla lépp jaamu yàlla ko beex ndax bañ a bir jëmee ataa an mu ngi ci biir bir bépp topp yàlla goo xam ne ku dëggu la rek mu ci biir bir kon nag dëgg moo la cay yóbbu mu ne aha dal waxtu dëgg deqeñ dëgg da def dëgg ba nga xam ne yowmal xiyaam boo demee yukkitab indallaahi annahu sadiq bu la joxee garante boobu nag dootoo mën a teg fen mukk ku yàlla tamponné cachet tamponné ñun lu tamponné mu ne kii de dëggukat la ku dëggu la wallaahi dootoo mën a wax fen te kenn dootu la mën a fen loolu itam nag safaan boo gënee am itam nag koo xam ne kii mooy mu tax mu dem moytu leen kas bi way iyaakum wal kas bi na ngeen mooy def wax lu du dëgg ñu ne lu tax mu ne parce que lu dul dëgg dafa yóbbu nit ci kàccoor seen caan gis nga wax lu dul dëgg su fekkoon dafay yem rek ci ñàkk wax gi rek muy problème waaye dafa yóbbu ci lu dul kàccoor la yóbbu da ko yóbbu nit ci ci kàccoor ndax suy avocat du bëgg a leen lu dul dëgg fu mu ko yóbbu ci kàccoor la ko yóbbu ndax du wax kati dëgg moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nañ moytu wax lu dul dëgg ndax mu ne léegoo leen nga gis koo xam ne fu mu dem day wax dëgg day wax fen kon lu mu wax dafay wax ni ko bañ dem ñu bind ko ci ko yàlla tamponné ko moom itam ne kii dee yàlla wàcce ko ci ju jullit yi boo waxee ñu ne xanaa du wax Moustapha ñu ne ah kooku oh, de waxu jeeg la rek kenn du sa doom waxu jeeg la rek kenn du sa doom lu tax yàlla subhanahu wa taala moo ko tamponné ci asamaan ni si jox ko ma jibril jox ko malaayka yi mu wàcce ba ci xol nit ñi lu wax duñ ko gëmbati kon nag dëgg soo bëggee am jikko yu rafet na nga dëgg al afu wa sax wa mu xabal isa bil ihsan yooyu junjoon nañ ko sànq ñu tëb ko rek ma ñëw ci njëriñ yi nga xam ni doomu aadama bi jikko yu rafet mën na koo jëriñ en tant que individu ak en tant que société su fekkee nga xam ne ki nit ki am na jikko yu rafet walaay topp yàlla da koy topp topp yonent bi da ko yomb waaye topp yàlla tam da ko yomb ndax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne xaaliqin naasa bi xuluqin hasan da ngay fexe ba jaxasoo nit yi jikko yoo xam ne jikko yu rafet la ndax soo ko amee rek da nga koo xam ne kii ku texee nga ku topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam jikko yu rafet day tax ñu faral si bépp lu ñaawtee wa tabi sayyi'a hasanatan tamhuha alquran mu ne su la rëccalee ba def lu bon teg ce lu baax loo ci tege lu baax rek mu évance lu bon la kon jikko yu rafet day tax sa jikko yu bon yépp wala boobu lu ñaaw yi ngay def mu rëccalee yépp dafay def ba tey day tax njëggalal yàlla tolérance yàlla mu nga am ko ci jikko yu baax dégg nga de da cay ba tey itam dafay waral texe ci mahabatullah nga am cofeelu yàlla subhanahu wa taala ndax yàlla subhanahu wa taala dafay wax ne ahaba abdullahi aw ahaba ibadillahi ila allah أحسنهم خلقا نيجينا سبب تجامو يالله نك خم نيوم يالله كن سبب نيمنا من برام تكو يرفع كن تكو يرفع دللا ما يجا أم تخم تي بعدين يالله سبحانه وتعالى بتأي تام تكو يرفع مغن تلو خم ندوم آدم مكوي لامبو ممنا جامو يامو جالو جامو يالله كسر ينتبه لك مسلا صلى الله عليه وسلم ينكو يو ينتبه صلى الله عليه وسلم لن مغن lu ñuy jox doomu aadama sallallahu alayhi wa sallam ne li gën ci li ñu jox doomu aadama mooy xasul xuluq jikko bu rafet jikko bu rafet boo ko amee lu jafe ñépp yomb la yow moo taxal mag ñi dañ ko léeboo ñu ne ku yaree de ko lu mu yore dana ko rëcc ku yaru jaar ku jàmm de lu mu yore mën na koy rëcc ku yaru jaar fa jël ko dem lu ñu cee déggee rek mooy ne nit ñi booy jëflante jikk jikko yu baax loo bëgg ci ñoom mën koy am waaye boo jëflante jikko yu bon loo amoon ci mu rëcc la bokk na ci ci jikko yu rafet li muy joxe ci doomu aadama mooy dundal sa du kër ci naataange waaye dundal sa kër itam sa sa dund sa dund yokk day joxe fan nga gudd boobu laa bëgg wax dafay joxe naataange di joxe li nga xam lii mooy dund ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal nañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew